ab cérémonie bu coalition Sonko président ca terrain bu akapes Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye ne dañuy moytu nag lu jëm ci wàllum trouble à l'ordre public ak jafe-jafe yu jëm nag ci askan wi mën di dem ak dikk ak seeni moomeel waaye tamit moytandiku itam nag ay nit yoo xamante ni dañoo mal intentionné daal di cay rax nag ngir di def loo xam ne naka su dul noonu waaye bu ñu sukkandikoo ci El Malick Ndiaye ma ngay woo képp kuy militant ak sympathisant nga toog te déglu leen nag jamono joojee Le Soleil nag di xamle ci lu jëm ci juróom-ñaari sages yi nga xam ne rek ñoom la ñuy bàyyi xel jamono jamono ji nag ngir lu jëm ci saytu gi ñeel parrainage yi jëm ci wàllu présidentiel bi dossier yi xam ne rek am nañu juróom-ñeenti pièces yi nga xam ne rek moom la ñu sàkku ngir ci wàllu saytu gi ñoom ñooy jàll ca conseil constitutionnel bu ñu sukkandikoo ci njiit la Boubacar Camara nag moo ubbi pecc mi niki démb ay dëmbooj nag nekk ca gannaaw a gannaaw ci tirage au sort bi mandataires yi nag ña ngay rafetlu jamono ji nag doxalin gi nga xam ne moom la sept sages yi di doxalee rawatina nag lu jëm ci tirage o sort bi loolee nag la yëglekaay bi di Sud Quotidien xëy fësal ci xëtam bu njëkk mu di ab ordre de passage boo xam ne rek moom la ñuy vérification yi ngir xool yan candidat la ñuy valider seen i parrainage yéenekaay bi ne ci Boubacar Camara la ñu dooree liggéey bi Ousmane Sonko moom ma ca ñeenteelu place ba Idi ak Mimi ak Boun Abdallah Dionne Malick Gakou yéenekaay bi ne boo moytuwulee nag danañ gis ci ñoom ay doublon des ba tey ci càmbar gi ñuy càmbara dossier yi soxal nag wàllum présidentiel yi la séglekaay xëy nag dellu siwaat ci commandement yi nga xam ne rek bàyyeekoon ci président scandale bi nga xam ne rek am na ci assemblée nationale député yi nag jamono ji indi nañu ay coppite jëm nag ci wàllum disponibilité yu officier yi jamono ji nag bépp officier boo xam ne rek da ngaa jugee ci concours bala nga amati ab disponibilité faaw rek nga def quinze ans de service Abba Mbaye Guy Marius Sagna ak Sanu Dione ñoom nag sàkk woon nañu ñu daal di ciy amal ab débat waaye Abdoulaye Wilane moo lànk ne lu ñu mel duñu ko def wàllu politique économie sécurité sociale l'observateur ci la xëy daal di sëgg ci atum 2024 bi nag mu ne at yoo xamante nii lañ cay xaar ci wàllu politique anticiper nag ay bombe politique ak yeneeni dialogue bu dee ci wàllu sécurité bi nag lañ ca war a wàññi àdduna ci moom yëglekaay bi économie bi nag ñu ubbi yeneeni xët yoo xam ne rek mën naa gën a yaatal lépp lu jëm ci wàllum industrialisation lu jëm ci wàllu jàng jàngale mi nag taxawal lépp loo xam ne rek moom moo koy suqali loolee nag ci la yëglekaay bi daal di xëy taxaw tey ji Walf Quotidien nag def ab rétrospective bu atum 2023 yéenekaay bi dellu siwaat ak ci Macky Sall na mu ne du bokk ci élection yi ñu tas parti Pastef ba noppi dugal ci kaso bi kii di Ousmane Sonko un pays produit chaos loolee nag la yëglekaay bi di Le Quotidien daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk mu ne at la moo xam ne nag dossier yu bëree bëri fës na ci bokk na ci dossier bi Ousmane Sonko manifestation yi ànd ak i bakkan yu faatu yàqate ay mbirum jàmbur tas li nga xam ne moo di parti Pastef arrestation bu leader bii di Ousmane Sonko rétrospective bu 2023 bés bi le jour de ma ngay tàggatoo noppi ci coowal troisième tranche bu woyofal lëkkaloo gi nga xam ne rek te Idi ak Macky enquête yëglekaay dellu suwaat nag ci célébration centenaire Cheikh Anta Diop yéenekaay bi ne ay yeesal indi nañ ko nag ci maison Cheikh Anta jamono ji nag ab musée la bu ñu dippee kër Cheikh Anta élimaanu jëwriñ ji di Amadou Ba ma ngay xam ne nag ne bërëb boobee dina doon nag barab bu ñuy mën a amalee ay waxtaan rawatina nag espace boo xam ne ay jeunes mën nañ faa dem nag ngir gën a yokk seeni inspiration jeexaleeg yëglekaay yi ak suñu làmb miy sampaap laaj ci combat bi war a dox ci diggante Modou Lo ak Boy Niang yéenekaay bi ne ndax waa